Mrs. Hannah Foster, Executive Director of African Center for Democracy and Human Rights Studies, has said that uh, the laws of the Gambia didn't prohibit any person to protest, saying it had been seen protesters being subjected to the use of force and to violence. Madam Foster made this remark in, opening, in an opening of two-day training organized by Initiative for the Promotion of Democracy and Good Governance held at the Regional Education Directorate 1 in Kanifin. Wow, Amadou kaddu gaa ngi noonu soxna protest buñ bàyyee xel bokk na ci luy dooleel démocratie ak yooya nan lañ koy defee ak ak yelleefu doomu aadama tamit lu jar a bàyyi xel ak yu jëm ci yooya. waaw xam nga affaire affaire affaire li nga xamante ne mooy protest gis-gis yi dañ ci ute. Mhm. Euh, ñu nekk ci nguur gi nañ la wax balaa ngay protest foog nga apply li nga xamante ne mooy permit euh, nga am nga nga ñu soog la koo jox foog ñu jox la ndigal daal ci gàttal pour nga mun a euh, génn ñaxtu wala wane li nga xamante ne mooy sa sa bopp ñeneen dañ la wax ne jaru ko because loi bi daf la may ku ne war naa mun a génn. fesal li nga xamante ne mooy la naqari ak yooyu dafa dafa dafa des ki nga waxal ak ban angul nga koo gisee waaye li ci mënta am solo. ñi nekk ci euh, àq ak yelleefu doomu aadama yi ñu ni ñoom. waaw ñoom seen gis-gis loolu waaye am na solo parce que ñoom seen taxawaay loolu lépp euh, all the time mooy pour loolu dañoo fexe euh, feeto ak nit ñi pour seen àq ak yelleef ñu fexe loolu mu mat. te loolu nag dafa am solo te foog naa lu mu leeral ñi tamit li li li nit war a jàpp la waaye li ci mënta am daal jàngat bi ñu bàyyi ko askan